ko si time boobu kon ñi daan wax ne l'islam dafa suufeel jigéen lu tax saxaaba yi dem ci ay sa kon am na lu ci kon l'islam suufeel suufeelu dafa ekkati jigéen dafa am fu jigéen nekkoon dégg nga bu ekkati moom tey bu lekk na xam ne ne nañ ne fii ci Afrique sax ku dem ci jamono yooya fonk ñu woon jigéen waaye islam yow génnee loolu yëpp oder wenn du deine Gurne amoon temps ñëw ci waaye li ma mën a wax rek mooy sàkku xam-xam ci lislaam ni ñu ko waxee na benn góor ak benn jullit jullit la ñu ko waxee fu mun di nekk da nga ko war a sàkku ji nga ko wax nañu ne war ko jëlee caay boobu caay na sori woon nga sàkku ji ko kon sàkku xam-xam lu am solo ci jigéen ñi ba tey laay nekk l'islam daf suñu yónnent bi sax sallallahu alayhi wa sallam suñu daan déglu waxam yi ku gën ci yéen mooy gën ku gën ca jabaram ak a day gën naa ci suma jabar ak suma njaboot nga dina def parce que ñun xam nañ suñu daan jàng tarixa yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu dee wax dina daan dàqwante soxna bi dellu dellu lu gannaaw rek soxna yi jiitu su xale yi nekk ca kër ga diine boobu même ba jigéen bu ko loo lool war nga cee bokk parce que diine bu fonk jigéen comme ni ma la ko waxee rek ci cër yu jëkkër yi ci l'islam jigéen lañ loolu jarul mu bànk ko ñun ñooy ndey rek muy ñun kon nag war nañu am xam-xam bi bu màcc ci ndax ñu mën koo ànd itam yonent bi ba tey sallallahu alayhi wa sallam mu ne àjjana mu ngi mu ci sa ron tànki ndey warul sa teg sa kon loolu lu am solo la kon ndey lu for la jigéen lu for la ci lislaam kon war nañ koo uti yoo xam ngeen ne Xadija radiyallahu anha li mu def ci alalam bi mu def ci lislaam mooy ki njëkk a nekk a julli ci fan gannaaw yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam ak moo ko jëkk ko ba mu jógee ko nettali la mu gis ca xeer boobu ñëw ne ko buur maag yooyu nekkal nekkal nekkal nekk jullit ñoom kon loolu am solo la ñu war ko xam ñu jigéen te kon nag diina boobu fonk Khadija radiyallahu anha fonk Aïcha fonk Mariam Aïcha itam bi nga xam ne Firaw na jabaram la ak ñeneen ak ñeneen kon diina boobu fonk na jigéen jigéen te jigéen war naa fonk kon nag su ma ne maa ngi wax rek lii nga xam ne jox na ko jigéen du ma ko fi jeexal waaye misconception si yéen day bari rek suñ jógee ne la xam ci diine daal maa ngi ñaan loolu maa ngi ñaan itam gis ñi nga wax njëriñ bi fi ñeneenti jabar waaw ñu ko tëral ci ak xam nga ñi ñi nga xam ne noonu diine bi la ñoo ñoo ñoo dee indil loolu lool yàlla wax na ko waaye ni ko waxee mooy pour nga mën a jàpp sa bopp soo mënta dem ci kenn a ah, mun nga am ñaar ñett bi ci ñeneen soo ko mënee yàlla dafa def condition soo ko mënee waaw loolu la loolu kenn war cee moom vidéo parce que am na fi souvent yéen dañu ma àndal si ay séeréer di foog ñoom ñu di ñoom ñu dem ñu ngeen di. man su ma jëlee sax mu leen bokkee. di wax ne dañoo dee teel a joxe xale yi ci lislaam ñu teel a sëy waaye foog naa lislaam dafa ne foog nga nekk mu kàlla bi tam laa foog waaye su ak ñoom El Hadj Ousmane dinañ ma ko seet. dina am xam-xam ci bàccam ci wàllu. ne jigéen du liggéey loolu itam foog man islam waxee na ko noonu dafa ne su fekkee ni sa jëkkër mun na laa yore defal la lépp ah dëggal ci kër gi yow nga yore njaboot nga won leen yooni l'islam jëkkër gi di dem ci kër di indi hijab sant nañ ko góor ñi tam bi ah tey ñu ngi gis suñu xale yi doole di yuuta di doon ak ak lay def dañ ne nag monsieur Touré même dañ ci bi ñu sa ñii waaw kon hijab la waaw kon du jigéen kon loola yooyu yëpp islam misconceptions daal di islam man daal li ma bëgg a gàttal rek ci bu mu tëj El Hadj Ousmane xam naa ne te yéen a ngi waxtaan ci lu am solo islam. definitely is the solution to humanity. waaw waaw gis nga feebar fu neexee su feebar yi am jàngoro yi am si àddina si yëpp ñàkk a ngóob rek la ak ñàkk a xam suñu diin. lii yëpp suñ doxoon doxaloon li yàlla santaane ak su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam kon problème yi ñu am ci àddina si yëpp. waaw waaw bu ko soxla loolu dañ ñàkk a def moo tax li l'islam moo ñëw pour xeetali ñu l'islam ñëw pour wàcce ñu gën nag nag su fekkoon ne l'islam ronguñ te jógewutoon ca yàlla ah di kon ma bàyyi na ngeen waaw waaye xam naa ne l'islam dëgga dëgga dafa ñëw pour dëgëral suñu tànk ñu jigéen kon nag nañ topp la ñu yàlla wax nañu sàkku xam-xam nañ xam suñu diine alquran karim bi la soo ko xamee la ca ne yëpp nga xam li nekk ci ahadis bi soo xamee jot dem ci fiqi foog naa su yàggee kenn du la gën a màcc ci lislam sa njaboot yi dëgg dëgg ci jàmm rek la ko parce que fi mu nekk nii li ñoo xeex rek mooy ñu ngi wax jihaad waaye jihaadul nafs moom fi boppam loolu la xeex fi mu nekk jikko yi ñoo yàqu ñoo kon xeex bu rëy lañ am te lislam rek a ko mun a waaye mbokki lislaam yi juróom defee nañ ko beneen yoon comme ni nga ko waxee rek ñun ni ñu ko daan déggee ak déggin bi tey dafa wut parce que lislaam dafa yaatu uh-huh. lenn rek soo ko laalee pour nga cee wax ay kitaab yu jeex waaw soo loolu ñu gërëm ci suñ gan yi jógee Sénégal mun naa ne suñ mbokk yi jógee Sénégal parce que tubaab yooyu ñu laaj rek waaye benn ci lislaam dañ ne boo leen julli sa bopp